et man je me demande la question ñaata avenir u xale yu jigéen lañ fi yàq daaw le motif amoon na cette fois-ci le motif amoon et aussi est-ce que sax duudu placé na pour def loolu puisque ku si nekk si ñun xam na ni loolu kenn waru ko def amul ben nit boo xamante ni am na droit di def yenn yu bon yooyu nag mais aussi est-ce que duudu ak fi mu est-ce que am na droit di promouvoir lu bon loolu noonu

képp koo xamante ni yaa ngi woon si nga xamante ni moom moo di série Adja bi wala yaa ngi si nga xamante ni moom moo di Marodi loolu daf lay def gàccee daf lay def benn complexe mais aussi sénégalais yi dañu dem ba tàmmal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi lu bon loo xamante ni boo ko defee tey jii nii ça sert à rien comme ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye Banaya def na lu bon xam nga après mu raar ñu dem ba sax ay nit génn ne dañ koy kaasal parce que vidéo boobu noonu ki ko filmé moo ko waroon filmé affaire yooyu ko publier je pense que ni loolu daf fi war a jeex nëpp nëppal yi moo fi war a jeex nit ki bu defee loo xamante ni jaaduwul bu defee loo xamante ni du yoon dañu war a taxaw carrément wax que ni lii mu def nii du yoon bu ëllëgee mooy waral loolu noonu bañ a law mais je pense que ni nit ñi ñu ngi wax que bon dañ ko war a suturaal waruñu wax que ni parce que fii la bokk et tout loolu ça n'a pas de sens am na loo xamante ni duur waru ko def bien vrai que ni kenn si ñu waru ko def mais aussi duuru warul def loolu. Sénégal nag léegi dafa neex quoi da ngay ñëw wilipande sa awra génne ko ñëpp gis ko comme ñaaxarañ loo après nga dem nekk benn snapper bu kan président de la république kon na di def li ngay def sans pour autant nga am ci benn complexe. la fois passée Ndeye Ndiaye bànnaay def na ko fecckat ki nga xam te ne moom mooy Sidi def ay interview ko kaasal ne bon dañ ko tooñ affaire yooyu noonu alors ko ku si nekk si ñun xam na ni Ndeye Ndiaye bànnaay dafa bon lu bon rek la doon def amul leneen te aussi n'oubliez pas képp koo xamante ni li ngay def.

amul xaaj amul sen fofu rek la aadama wuuteeg ñenn parce que mom que ça soit mu nekk Doudou que ça soit mu nekk keneen ak keneen ku nit ñi xam mu nekk célébrité ñepp la yemale daf koy teg ci li nga xamante ni moom moo di raay bi je pense que ni cette fois ci aussi non la ko defee te dina def vidéo teg nga xamante ni moom moo di Doudou ci raay bobu ëllëgé képp ko xamante ni célébrité nga wala nga def yeen affaires yi bon bokoy koy defaat di ko bu baax parce que bu njëkk loolu la woon man ngi nekk célébrité def bien affaire télé duñ ko wane ñu ci war wax internet bi duñ ci wax youtubeurs yi nga xam ñoo si a wax bu fekkee da ngeen am ay link duñ si wax mais là ki nga xam te ni moom la amee différence ak ñeneen képp koo xamante ni xam nga Doudou et aussi koo xamante sax célébrité nga parce que dèjà après ñëpp dañ naan kon là ñii nii lañ mel Doudou je pense que ni ternir na benn image boo xamante ni dans sa vie mënatu ko defar lépp loo xamante ni liggéeyoon na ko ci li nga xamante ni moom moo di carrière artiste artisan am yàq parce que là y' a beaucoup de gens qui xamante ni ñu ngi ko doon suivre tout bi lu mais là depuis ñu gis li nga xamante ni moom vidéo bi dañuy am benn recul ci parce que xaaruñu ko won foofu té aussi daf leen bête carrément et man aussi je pense que ni Doudou mosuma ko xaar ci yenn affaire yu melni mais aussi comme ni nga ko l'apparence est souvent trompeuse donc je pense que ni lolu mo arrivé ki nga xamante ni moom Doudou et je pense que ni vidéo bi nak propagé wu na fépp et aussi à chaque fois comme ni ñu koy defee hein képp ko xamante ni def nga lo xamante du yoon ñu teg ko si yoon wax ko ñepp jot si bu ëllëgee sa morom bu ko naree def mu xoraat lu muy def sinon mbon gi day daw si li nga xamante ni moom moo di àdduna. am na ñoo a rey sénégalais yi que ni lii bu ko exposer sa vidéo fi nga moo di si internet bi mais là te lui répond que loo xamante ni Doudou daf ko waroon dépassé ni Doudou est plus haut que ça ay appel vidéo génne li nga xamante ni moom moo di ay awraam di masturbé wu loolu je pense que ni war na ko dépassé là dafa salté ce ki nga xamante ni moom moo di image Doudou ku dul duudu sax dafa salte ci li nga xam te ni moom moo di sa image mais au au moins moom instant ni carrière artistique am yàqu na parce que là nit ñu bëri bu génnee dal dañ koy xoolee bien vrai que nag am na ñoo xam xamante ni bon amuñu jom lépp loo xamante ni mën nañ ko def mën nañ ci génnaat mën nañ dikk def comme si rien n'était mais def comme si mësul nekk ñoom mais aussi am na loo xamante ni du yëfu góor nit waru ko def et je pense que ni li dina nek lo xamante ni ko koo artiste nga wala képp ko xamante ni célébrité nga ak képp ko xamante sénégalais nga tout court nek doomu aadama bañ lu ñaaw di nga ci jànge leçon parce que man là bu ma ko gisee daf ma sooke carrément parce que li ni ko dal li kenn yéenewu ko ko et aussi tamit sénégalais amna ci ño ñoo duñ suivre n'importe qui buñ la xamé ci yene affaire dañuy commencer am benn recul ci yow et je pense que ni lolu dina arrivé ci nga xamante ni moom moo di Doudou parce que là benn jeune la boo xamante ni ku si nekk boo ko gisee da nga naan laa kii dafa yaru xale la boo xamante ni dafa mën li def te aussi mu ngi góorgóorlu si li nga moo di liggéeyam xam nga sans pour autant tamit nga xelaat yenn affaire ci moom mais un bon jour ñu xëy comme genre boo xamante ni bon kenn xamul fu mu ne kan la ñu ni duru je pense que da ngay découragé wu ci célébrité yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal parce que a yam et pense que ni Adamo mas na fi wax lu mel noonu si keneen koo xamante ni bon tey dañu jaar ci li nga xamante ni moom moo di turam parce que vidéo bi du pour moom après cela ci la aadama woo ki nga xamante ni moom moo di duudu pour laaj ko loolu noonu mu ne ko noodu moom est-ce que tey jii nii affirmation boobu noonu confirmation bu nga xamante duudu defoon na ko est-ce que c'était vrai parce que moom mi nga xamante moom moo doon weddi loolu ne doonul kooku tey jii ñu gis ko mu def lii nii comme li ñuy wax naan ñu lay jiiñ te mu ngay soccoo li nga je pense que ni loolu nga xamante ni duuru doon na ko bon loolu yëpp dëgg la mais tey nag duñ ñëw si loolu peut-être prochainement lañ defaat vidéo si loolu noonu exposer ko faire comprendre aux Sénégalais que ni lii la demee parce que kooku aussi tamit ay bagages am jaaroon na fi xam nga wilipande woon na li nga xam te ni moom moo di ay awraam ba Sénégal yëpp teg ci seen bët donc je pense que ni aussi il va falloir aussi ñu dikkaat ci revenir ci parce que duudu bi nga xamante ni moom moo ko doon jëlal part duudu bi nga xamante ni moom moo doon faire comprendre au Sénégalais que ni kat lii nii dañ ko xoy di nekkul moom tey moom lañ gis ci benn vidéo muy masturbé wu vidéo boo xam te ni je pense que ni war na Sénégal njaay yëpp ban duudu duudu bu série aja il faut être clair parce que déjà duud yi bëri nañ et il y a pas mal de gens man premièrement bu ma gisee li nga xamante ni bu ma déggee li nga xamante ni moom moo di rumeur yi loolu laa njëkk a identifié ban duudu la parce que amul benn duudu boo xamante ni am na image loolu noonu vraiment affaire bi métti na ma ba fi métti yam et je pense que ni nag bon am na ay nit ñuy wax que ni bon ñu ngi yàq li nga xamante ni moom moo di avenir u jàmbur mais je pense que ni duudu moom moo yàq li nga xamante ni moom moo di avenir am et ñaata avenir u xale yu jigéen lañ fi def nii exposé fi awra xaw na jigéen wala duudu dafa nekk benn célébrité c'est pourquoi bu defee benn affaire kenn du exposé je pense que ni loolu ça n'a pas de sens te aussi loolu existé wul fii ñëpp ñooy am képp koo xamante ni def nga loo xamante ni waroo ko def et aussi conscient nga si li nga def parce que tey jii nii ce n'est pas la première fois bu nekkoon la première fois ñu mën ko pardonner mais aussi teg na bëtam si ñu koy def gis ko gisati ko donc bu ko defee ñun aussi dañuy jàpp ni li mu def nii moom moo ko tey